donc loolu ni ñu ko mën a prévoire mooy delloo si état de droit defaraat justice bi ba mu mucc ayib mouvement jàmmi Sénégal yor ci solution parce que justice du Sénégal jafewut a defar loxo bi ci nekk te waru cee dugg rek moom lañ ciy génne muy loxol président de la république moom la ñuy génne ba mu set ci magistrature daal di defar li ñuy wax juge de libertés doxale ko ci diggante procureur ak tribunal ba nga xam ne juge boobu rôle am mooy bu procureur ne nañu placé diw su mandat de defoo juge bi ni ko déedéet taxawal ani chef d'inculpation yi mu ne nangam la def nangam la def nangam la def mu ne ana fu mu dëkk mu ne ko tel lieu ndax mën naa génn réew mi déedéet kooku jarul yóbbu kaso dindi loolu ba mu set juge boobu li muy jariñ mooy bu procureur ne damay placer diw su mandat de dépôt mu ni ko ana lu mu def mu ni ko nangam ak nangam mu ni ko procureur li jarul tëj nit relaxel mu dem dama koy relaxer juge boobu tamit li muy jariñ mooy koo nga xamante ni dañ koo jiiñ lu ñu xamagul ñu mettre ko en examen en attendant ñu def enquête au lieu que ñu koy yóbbu instruction di ko placer ci kaso bi pendant six mois ñu bàyyi ko mu dellu ci ay mbokkam ñu surveiller ko moo xam dañ koy defal bracelet électronique wala contrôle judiciaire en attendant ñuy def enquête yi ba leer ba xam moo def wala deful parce que njomme bi nekk ci loolu mooy daanaka ku ñu fi tëj par erreur judiciaire kenn du la jox ndàmpaay après te loolu dina tax nit ñi dinañ moytandiku waaye justice aussi dina leen dimbali ba wàññi dossier yi kaso yi dina désengorgé wu ba nga xam ni prisonniers yi dinañ mën a tëdd en respectant aussi les droits les plus élémentaires parce que kaso yi nekk ci réew mi anam yi ñuy tëje nit ci kaso du anam yu dëppoo ak yoon donc yooyu mécanisme la yoo xam dina tax suñu justice jaaraat ci yoon ba ñu mën a avancer loolu yëpp nag buñ ci jógee ñu wax nag luy développer Sénégal dindi ndool gi nga xamante ni mi ngi ci biir réew mi ca ku fi dëkk ku nekk nattablewuloo ko ku ne Sénégal neex na rek mooy dangaa bokk ci nguur gi waaye boo duggee ci biir réew mi mbaa nga yor borom nga nekk borom famille bu yaatu di xam ni réew mi ñu sonn bari nañu ay goro ngi fi yoo nga xam ni mënuñoo lijjanti dara te mënuñoo tàllal loxo di laaj te képp koo leen gis muy laaj bu sa bu sa day joxe ñu ne réewum Sénégal kenn mënu koo développé ci suñu xam-xam ñun te jaar woo ko ci mbay delluwaat ci suuf si jàmmi senegal nag ne budget national bi ginnaaw bu ñu ko saytoo ba récupérer xaalis yi ñuy perte ci àll bi ba noppi dañuy jël le tiers au minimum wala le quart def ko ci suuf si industrialiser mbay mi bay defaraat suuf si faj ko parce que suuf day feebar ni nit di feebare suuf day sonn donc donc suuf dafay feebar comme ni doomu aadama di feebare képp kuy bëgg a suqali mbay mi danga war a xam bu baax naka nga koy defe ndax réew mu mel ni Sénégal am suuf su tàlli ñaret am jant bu tàng jër ndox wër ko muy taw muy inondé ba pare ñuy bay ñetti weer ci at loolu jaaduwut Israël kat bariwuñu ndox bariwuñu taw waaye guddoo bu jóge ci asamaan si di dal ci suuf ñoom dinañ ko récupérer utiliser waat ko te technologie yu yomba yomb la danu wax ni toutes les grandes villes war nañ ko assainir ceinturer ko par des bassins de rétention de haute densité def ay canalisation yoo nga xam ne daf ñuy permettre ñu drainer récupérer les eaux de pluie drainer ko jaarale ko ci ay station d'épuration d'eau traité ko yóbbu ko ci àll bi ñu utiliser ko fexe ba irriguer àll bi suuf si ñu defaraat ko faj ko par ay intrant wala ay tos wala ay plante parce que am na plante yoo nga xam ne ku ne xam na ne xob yi rek bu woowee day fertiliser waat suuf lu mel ni kàdd noonu la amee tamit ay ñax wala ay euh, fleur yoo nga xamante ni day rey suuf lu mel ni nduxum di ngeen dégg olof yi naan affaire ba dafa am nduxum nduxum ñax la goo nga xamante ni bu saxandoo ak dugub te yàqu ko bu ronoo reenu ñebbe yàqu ko bu ronoo reeni gerte yàqu ko donc xeet yooyu dañ ko war a xam ba nga xam ne bu ñuy faj suuf si dañuy koy mën a segg dindi ko labourer suuf si def ci tos boo nga xam day rey élément yooyu dëpp ko suuf day sonn léeg-léeg dafa am zone yoo nga xam ne dañ naan ñu leen bàyyi at mi at mi ñu bay leen wala ñaari weer yi weer wala ñu bay leen donc yooyu nekk ay mécanismes yoo nga xamante ni levier yi xam nañ ko parce que yàlla dogal na ñuy nitu àll jaar ci mbay ci fu ne donc xam bu baax li ñuy wax xam bu baax fi ñu ci mën a jëme réew mi ñu diversifier mbay mi aussi bañati ko yamale ci gerte ak dugub Sénégal war nañ mën a bay blé bu bari war nañ mën a expérimenter tamit maïs di si bay lu bari sorgho lu mel ni tabanaani nga xamante ni euh, source énergétique la day defar sax courant loolu yëpp mën nañ koo bay fexe ba réew mi waxuma la suffisance alimentaire wante dañuy di yóbbu sax bitim réew di leen jàppale ci lu ñu dundee ci réew yi ñu jege Sénégal àttan na loolu donc bu nu paree ci mbay mi chaîne la ku ne xam na ni mbay bu nangoo la fay jógee duñu ko mën a utiliser loolu nag mooy rogalaat daal dugg ci li ñuy wax transformation ndax boo amee ay fruits yu bari am ay légumes yu bari am gerte gu bari am ñebbe bu bari mënoo ko utiliser day daal di dugg ci li ñuy wax transformation génn ci yeneen produit moo xam diwlin la moo xam saabu la moo xam rakkal la moo xam moo xam moo xam yooyu yëpp nag transformation boobu lim ñuy indil mooy yëkkati le secteur industriel nationaliser nag lépp promouvoir ay sénégalais ñu créer ay entreprises xam ne état da leen di appuyer bu ñu mën a transformer bu nu jógee foofu daal di jëm nag ci wàllu njàng mi ndax éducation bu amul bopp yi du ñu baax du ñu normal njàng mi dañoo wax ni 1960 ba tey ñuy jàng ku néew évaluation bi maanaam niñ leen di natte benn manière la mënoo boole ñëpp di leen defloo depuis 1960 même façon entrée en même façon brevet même façon BFM même façon baccalauréat baccalauréat même façon maîtrise même façon licence damay faral di wax ni ku bëgg a natt man manub jën da ko yóbbu ci géej ni kon féeyal waaye doo ko yóbbu ci garab naan ko yéegal donc ñi nga xamante ni si dañ leen di jàngal éducation bi d'abord à bas âge wax ni éducation religieuse dañ koy boole introduir ko ci éducation national nga xam ne jàng alxuraan primaire jàng arab primaire jàng tamit waa li waa jàngu bi di jàngale ci primaire ak lu mën di doon day yam ak jàng mathématique day yem ak jàng SVT day yem ak jàng histoire géographie jàngalekat yooyu ñu intégré leen ba ñu yem ak professeur yooyu gëdd bu ñu demee collège commencé fekk bu ñuy nekk CM2 peut-être war na leen fekk ñu mën a wàcc alxuraan ci alxuraan laa ko mën a natt ndax moom laa xam bu ñu demee ci collège ñu commencé jàng xam-xam bu ñu demee lycée tàmbalee jàng téere yu mag yi ñooñu defe naa bu ñu eggee ci bac moo xam téere Serigne Touba la moo xam mbindum Seydi Hadji Malick la moo xam mbindum Baye Niass la moo xam maam Limaamu moo xam ku mën di doon bu ñu màggee ci loolu ñoo ñu kenn dootul mën a dévier seen xel ba dugal leen ci loo nga xamante ni waruñ caa nekk lobbying bi ñuy xeex ñuy yaakaar ne de dugg Sénégal yàq réew mi la seule méthode pour lutter contre cela moom mooy éducation bu baax